Morane Gueye yow yaa jiite école privée Fallou Gallas euh, ay at ngi nii ngeen di indil ay mbir euh, lii di nu détenu prise euh, mag bo Mbacké tey lu ngeen indi. tey indi nañ fi ay savon ay madar indi nan fi woon ceeb mais comme situation bi mu demee nii ñoom am nañ circulaire boo xam ne bi yooyu da leen koy aayee pour ñu leen dugal ay lekk indi nañ fi ay ventilo parce que tàngoor bi dafa metti te xam nga dañuy surcharge foofu. te am na nañ ay problème indi nañ fii javel indi fii ay détergent je crois que loolu en gros loolu lañ fii nii daal. Euh, pourquoi ngeen tànn détenu yi. parce que xam na ni nekk nañ ci ay problème te vraiment xam na ni état bi mënul def lépp ñun nag comme acteur de développement la nekk ci dans l'éducation chaque année ñu koy def ci son sant bi ñuy nag léegi na leen jàppale aussi indi leen loolu parce que ku nekk rek war nga mën a jàppale leen ci loolu parce que dafa metti ci situation yi nekk.